bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu ala sayidina muhammadin waala alihi wa saxbihi wasallama amin alxadiisu taasicu juróom-ñeenteelu xadiis nee na an abi hurayrata jëlee nañ ci sayiduna abu hurayra turam la ca gën a wér mooy abdirahman bin saxrin doomi saxr radiallahu taala an ko yàlla gërëm ñu bari ci nit ñi mbaa ëpp ci ñoom xamuñu turu abu hurayra boroom xam-xam yi wuute nañ ci ay turam waaye tur wi ci gën a wér gën cee jege njub mooy tur wi imaam annawawi indi ne abdurahman tudd ibnu saxr ñu ko daan dàkkantale abu hurayra ndax dafa amoon muus su ndaw su ko miinoon lool moom it mu miin muus ma àndaale daan àndaaleeg muus ma wala àndaale gu muus mi daan àndaaleeg moom tax ñu naan ko bàyyi mu ndaw mi qaala nee na samitu man de dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa nahaytukum lu ma maa nahaytukum lépp loo xam ne tere naa leen ko wala ma nahaytukum lépp lu ma leen tere anhu ko wala ma loo xam ne nahaytukum tere naa leen anhu wëlis ko fajtanibuhu teet leen ko wa ma amartukum bihi lu ma leen digal fatu minhu na ngeen dikkee ca loola mastataatum lu ngeen mën fa innama ahlaka halakut adaatu xasr la wolof da koy firee yëgal ne xalak na wala xamal ne xalak na waaye limuy muy rek mooy dara xalakut alladina ñi nga xam ne min qablikum jiitu nañ leen kathratu masailihim ludut bërik seen laaj innama loolu lay firi dafay takk dafay tëj waxtilaafuhum ak wuuteeg seen ala anbiyaihim seeni yenunt mm-hmm. waxtilaafuhum baax na mm-hmm. muy mujaradu wuutee rek mm-hmm. wala waxtilaafihim nga at fu ko ci masailihim muy kon kathratu ixtilaafihim bërig seen wuutee bërig wuuteeg ab yonantu dana alak wala wuuteeg moom sax bu dee bëriwut sax dana alak xadis ji nag am na am na cosaan xam nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam bés dafay xutba saxaaba yi saydna abu hurayra nettali na ko ne ayyuhan naas ay nit ñi inna allaha yàlla farada farataal na aleykum ci yéen alxajja xaj fa xujju na ngeen aji fa qaala rajulun benn waay ne a kulla aamin ya rasulallah ndax mu ne la aj war nee na yonentu noppi waxul dara ba waa ji répété lool ñetti yoon yonentu sallallahu law qultu naam su ma waaw rek la wajabat xaj war ci yéen at mu ne wala mistataatum te du ngeen ko mën mu daal ci teg nag ne daruni ma taraktukum na ngeen ma ba feek banaa leen am na riwaaye ju ne dauni ma taraktukum na ngeen ma ba feek maa ngi leen di ba mooy bu leen bëri lu ngeen di laaj loo xam ne waxuma ca Euh, boroom xam-xam yi lijjanti nañ it ba xam waa jooje kan la ki nga xam ne moo doon laaj yonantu bi sallallahu alayhi turam mooy al aqrau bnu xaabis mu ngi bokk ci banu tamim moo laajoon yonantu bi sallallahu laaj bi bi yonantu bi ba pare nag la ci teg ne maa nahaytukum anhu faj tani bu mm-hmm. hmm? mm-hmm. wala la ca teg ne mm-hmm. fa innama ahlaka alladina min qablihim kathratu masailihim kon xadis bi ñëw na ci ay riwayat waaye ci matale loolu la dafa am lu ko jiitu am waxee loolu pare nag ne maa nahaytukum lu ma te maa nahaytukum anhu lu ma leen tere fajtanibuhu na ngeen ko teet wa ma amartukum bihi hmm. lu ma leen digal fatoo minhu mustataatum na ngeen ca def lu ngeen mën hmm. xam nga tere hmm. mooy sàkku ak ba waaye ala wajhi listicla kii sàkku ci yow nga ba moo la féetee kaw loolay tudd tere donte féetee kaw ga sax ictiqaad la rek wala daawa la rek mm-hmm. da koo fas rek mm-hmm. wala daf koo woote rek mm-hmm. moo tax mu tere la mu wax danañ ko tuddee ak tere jëfe nga ko wala jëfee woo moo tax borom xam-xam usool yi di wax ne annahyu talabul këffi ala wajhi l isticlaai walaw xasaba daawa naahi na même su dee kawewut la sax waaye bu tere bu tere dikkee rek hmm. loolu lay firi hmm. Hmm? ndigal tamit mooy sàkkuk def te kay sàkku ci yow nga def daf laa faree kaw bu dee sax ak woote la bu fekkee ne ci yàlla ko yonantu la nag ah kenn werantewul seenu kawe mm-hmm. ku ne xam ne ne yàllaa ñu bind moo ñu sañ digal mm-hmm. ku ne xam ne it ne yonentu sallallahu alayhi moo gën a kawe ci li yàlla bind moom la jox ndigal jox ko mm-hmm. permission mu digle mu ne maa nahaytukum anhu fajtanibuhu jumla ji jumlaay charte la hmm, jumla ji jumlaay charte la maa mi mooy ismu charte ji nahaytukum di fi'lu charte ji faj tari boobu mooy jawaabi charte ji mm-hmm. te jawaabi charte nag day am faa mm-hmm. mm-hmm. hmm? ndax jawaabi charte dañ koy lëkkaleek faa hmm. na borom way waxe ismiyatun talabiyatun wa bi jaamidin hmm. jumla ji fii jumlaay talab la faj tani boobu ak faatu minhu mastataatum nga gis nag ni xadis ju bëri njëriñ la njëriñ la ca njëkk mooy lépp loo xam ne yonantu sallallahu alayhi tere na ko des koo war a teet waxul fajtaniboo minhu mastataatum ndax teet moom yomb na mm-hmm. teet mooy bañ a def rek mm-hmm. bañ a def moo gën a jafe moo gën a yomb def mm-hmm. moo tax lépp lu ñu tere amul bàcca lañ mën déedéet lépp la ñuy ba moo tax mu ne maa nahaytukum anhu fajtanibu na ngeen ba lépp tere nag dafay làmboo lu néew ak lu bari buñ ñu teree riba hmm. bu ñu wax ne ah am na yenn xeetu riba yoo xam ne mën nañ koo nangam hmm. wala riba gu bari hmm. lañ tere ndax ba moom pour mu sotti fokk nga ba lu tuuti ak lu bëri annahyu yashmalu alqalil yashmalu alqalila walkathir buñ ne tere hmm. ba ko moo gën a yomb hmm. jëf hmm. am ku ne ah mën nañoo tontu li ci daganal giñ daganal néew maanaam mid ak mbaam xoox ci koo xam ne dafa loru kon kay tere duñ ba lépp lu tax ngeen tere dañoo war a ba lépp te ñu daganal medd ak mbaam xoox ci ku loru hmm. ñu ne ba loru dikkee rek hmm. la tere dem la tere dañ hmm. moo tax amul muaaradatu foofu amul euh, contradiction yàlla mu ne waqad fassala lakum ma xarama alaykum illa ma turrirtum illa ma turrirtum ilayh kon bu darura ñëwee rek hmm. ab daruraatu tubixul maxduraat hmm. hmm. waaye nag darura tuqaddaru bi qadariha maanaam buñ la teree médd darura tax nga mën a lekk medd xiif nga ba boo ko lekku dee dang cey lekk rek la la mën a fegal alkande waaye doo ca lekk ba regg lu dul nag nga ne nga jàpp ne boo reggut da nga xiifaat ci diggante bi te doo am loo lekk su boobaa ñaarey am muy lekk lekk goo mën a conserver nga yóbbaale ko boo demee ba la la jotoon jotaat la nga lekk ca wala soo ko mënta conserver nga lekk ca ba rekk te dem du noonu mm-hmm. uh-huh. mm-hmm. tere kon moo gën a làmbu mm-hmm. uh, uh, ndigal ndax tere moom walla tere kon ci lañ gën a catégorique ci digal tere moom lépp lañuy ñuy baax digal nag mu ne def ca sa kemtalaayu kàttan wa ma amartukum bihi fa'tu waa ndax loolu tashil la wala tashdid def ci sa kéemtalaayu kàttan yàlla nee na fattaqullaha mustataatum ragaleen yàlla seen kéemtalaayu kàttan yonent ne sallallahu alayhi lu ma leen digal fa'tu minhu mustataatum ndax dafay taral wala dafay yombal maanaam mi mooy bu ma leen digalee dara fokk ngeen taxawee ko kemtalaayu seen kàttan te ngeen bañ koo sàggane fiig yéen ngi mën buñ la digaloon nga ne mënuma te fekk mën nga ne yàlla lu lu lu nit loo mën rek la wax te man mënuma waaye woote ne mënoo du tere nga mën du mm-hmm. tere nga mën wax mm-hmm. yàlla moom xam na ne mën nga moo tax mu digal la mm-hmm. nga def li nga mën boo mën a dee mu ne laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha kon yàlla du digle lu dul li nga mën li nga mën nag boo demee ba mën a di dab la it digal la fay rot mm. Mm-hmm. li muy wane mooy doom aadama am na istitaa am na kàttan mm-hmm. ndax yàlla ndax yonent nee na mastataatum yàlla nee na mastataatum mm-hmm. loolu dana tontu aljabriyatu ñuy wax ne doomu aadama lu def rek dañ ko ko forcé même su fekkee dafa yëgati loxoom mbaa mu yëg yëngal làmmiñam wax na wala jëf na ñoom dañoo jàpp ne al insaanu mujbarun walaysa mu xayar waaye doomu aadama am na taxyir am na tamit ijbaar mm-hmm. am na yoo xam ne mënoo koo téye mm-hmm. gëmmentu su dikkee mm-hmm. nelaw rek mënoo fexe ba téye ko feebar yi lay dalit euh, mënuloo la na tere waaye am na lu la yàlla mën loo nag donte moo la bind bind li ngay def wallahu xalaqakum wa ma taamaluun beneen bi liñ la digal muy alwaajibu soo mënta def lépp mm-hmm. nam waree bu mu tax nga ba ba lépp mm-hmm. def ca la nga mën mm-hmm. misaal mi mooy dañ laa digal booy julli nga taxaw bu fekkee ne mënoo taxaw du tax julli gi wàcc la na nga jullee ni nga mënee ndégam toog la ndégam tëdd la su fekkee ne it mën ngaa taxaw waaye boo taxawee lu yàgg mu metti ci yow ngir feebar boo feebar hmm. taxawal kem talaay li nga mën a taxaw li ci des nga toog ko hmm. diine ji diine ju yomb la hmm. waaye du tax ñu sàgganee liñ mën diine ju sérieux la waaye du tax ñu def luñ mënut uh-huh. saa yu déggee ndigalu yonantu sallallahu alayhi wa bu ñu wax ne ah ndax ndigal li wu la walla nàngam la li feeg lu koy tere nekk wu rekk dañuy jàpp ne lu war la buñ gisee luy wane na nag ndigalu sopp la walla ndigalu leneen la ñu soog caa dem ndax yonent mu ne fatu minhu mastataatum danañ jàppee ci xadis ji ne yonentu sallallahu alayhi wa sañ nañoo jox ndigal te sañuñ caa teg baat mhm. moo tax kenn du wax ne ah alquran rek moo ñu mën a digal sunna nangam ak nangam mhm. képp ku weddi sunna weddi nga alquran mhm. da fekk ay ndigal ci sunna yoo xam ne doo fekk jëmmi ndigal ya ci alquran waaye la tax nga mën a jëfe ndigal yooyu ci sunna mi ngi ci alquran da alquran moo ne la man yutii rasula faqad ataa allah mm-hmm. ku topp yonentu topp na yàlla mm-hmm. alquran moo ne la fa aminu billahi mm-hmm. wa rasulihi nnabii lummiyi alladi yuminu billahi wa kalimatihi lu mu ca teg wattabicuhu gëm leen yàllaa ko yonentam bi nga xam ne mooy nabiyu lummiyu diw jàngut kuñ ko wax muy xas ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñi jàng yëpp léegi yu yonent bi xam ne yuminu gëm na yàlla wa kalimaatihi ay ak i mm-hmm. Mm-hmm. topp ko mm-hmm. wax na sax ne ne bu ngeen ko toppee rek tahtadu wa in kon ndigal lu jóge ci moom nekk na ci alxuraan nekkul ci alxuraan yëpp dafay dañ koy topp lu tax ndax alquran wax nañu ne ku ko topp yàlla nga topp wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduhu ndax rida allahi fi rida rasulillahi wala rida rasulillahi fi rida allahi subhanahu wa taala bokk nañ li ñu jàngee ci xadis jiit laaj yu amul njëriñ des ko war a moytu de sa war a moytu laaj yu amul njëriñ mm-hmm. wala laaj yoo xam ne nii dafay dollu ci xëybu mm-hmm. ni ki yàlla ki meloom mm-hmm. ak mbiri yowmal qiyaamati yi nga xam ne yàlla leeralalul ñu ko leeralalul ñu leen yonentu leeralul leen nit ci da ca xuus ci laaj yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne li alak xeet yi ñu jiitu mm. mooy bari laaj mm-hmm. ak bari ku wuute ak seen yonant mm-hmm. alxuraan mm. wax nañ ci lu bari xeet yi mm. ñu jiitu suñ ko waxee rek ñaare dikk ci suñu xel yi ñu jiitu balaa ñoo dikk ñun mm-hmm. sës ci ñun wi nasara ak yahud wala xeet yi ñu jiitu de manière générale te mm-hmm. yëpp ixtimaal la mm-hmm. waaye bëri na misaal yu yàllay joxe ci alquran mm-hmm. yuy dellu ci yahud niñ sonnale woon seen yonantu ci laaj yoo xam ne amalut leen njëriñ wala waree su ko laaj euh, yàlla bi mu leen waxee ne mm. nañ leen di nag ngir feeñal ki rey kañ rey ca ñoom mm-hmm. inna allaha yaamurukum an tadbaxu baqara mm-hmm. boobu nag wu ñu rendi woon rek mu doy mm-hmm. waaye bañ bëri lee laaj nu nag wi mel wan couleur la dafay liggéey dafay nangam ba laaj ya bëree jafel nañ yàlla jafel moo tax yonentu ne bu ñu waxul woon wa inna insha allahu la muhtadoona duñ mos xam ca mujj ga nag bañ waxee loolu ca la solution dikk mhm. waaye nag way pour ñu trouver ko soxna leen sàpp mhm. lu tax laaj yu bari mhm. euh, laaj yu bëri nag su fekkee ne loo soxla la ci masailu fiq dara newu ci fekkee soxla la su fekkee du soxla nag ñaara am benn ngay jàngkatu xam-xam di gëstu kooku foog nga laaj wala du la jànkatu xam-xam da wut fatwa rek mm-hmm. kooku laajal li nga soxla rek mm-hmm. Mm-hmm. waaye laaj yu bari daal ak wuuteeg kilifa rawatina kilifa goo xam ne ab yonantu la nee na moo alak ñi jiitu woon wax naa ne ñaari firi ñoo am ci ixtilaafuhum man boo ko dammee mooy wuuteeg yonantu rek mm-hmm. wuuteeg gumu gumu dafay xalak mm-hmm. soo ko kasraaye mm. dafay nekk dafay nekk atfu kon ci euh, masaili mm-hmm. bu ko defee kon da fay nattale wa kathratu ixtilaafihim ak bëri bëril seen ak wuute ala anbiyaihim ndax kat yi ñooy suñu ilimaan yonentu wax na ne innama jucila al imaamu bihi fala taxtalifu alayhi ilimaan dañ ko def ngir ñu roy ca moom bu leen ak moom wuutee waxul nag ixtilaafu an ala mooy diingat ixtilaafu ala mooy ku ko def rek xalku mhm. bu bëree nag xalkande ja gën a gaaw mhm. Mhm. yàlla leen teral di wax ak ñoom lim bëgg ñun ñu jot ci mënuñ cee jot lu dul ñu déglu leen ndax ñoom la yóbbante ci ñun lu ñu indil ñu xam ne lii ci yàlla la jóge yajibu lirrusulil kirami sidqu amaanatun tabliiguhum yaxiqu muxaalun ilkadibu walmanhiyu ka cadami tabliigi yaa dakiyu law lam yakunuu saadiqiina la lazim an yukdaba wala an yakdiba alilahu fi tasdiqihim id mucjizatuhum ka qawlihi wa bar sadaqa hada alabdu fi kulli xabar law intafa tabligu aw xaanu xutim an yuqlaba almanhiyu taatan lahum kon luñ wax rek mm-hmm. yàllaa ko wax mm-hmm. ku wuteeg ñoom wuteeg yàlla mm-hmm. maa nahaytukum anhu lépp lu ma leen digal fajtanibuhu teet leen ko wa ma lépp lu ma leen tere maa nahaytukum anhu lépp lu ma leen tere fajtanibuhu teet leen ko wa ma amartukum bi lépp lu ma leen digal fa fatu minu mastataatum def leen ci ko kemtalaayu seen kàttan maanaam def leen ci lu ngeen mën waxu def leen ci lu leen neex de fa innama ahlaka leen jiitu kathratu masailihim hmm. lu dul bari seeni laaj hmm, hmm. waxtilaafuhum ak seenuk wuute ak diingat ala ambiyaihim seeni yonent ya hadis ji rawaahu solo na ko albuxaariyu wa muslim nañu yàlla boole ci ñu nga xam ne lu yonentu tere ñu baax lum digle ñu def tam nangul ñu yaarabi hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amin amin wa iyaakum